waat bu baax di wane waat sunu cant ak sunu mbég. jërëjëf di waxtaan ak fii nga teewlu. jërëjëf. waaw maa ngi lay ñaanal Serigne Saliou gën la ko man loo. amiin nu bokk ko. waaw gën a dolli sa ubbiku gën a dolli sa xam-xam. amiin nu bokk ko te gën noo dimbali itam ñu gën a mën a taataan njariñ lii ngay wax ba man koo gën a mën a jariñoo ci sunu taalibe. amiin nu bokk ndax kat wax dëgg yàlla waxtaan wii nga nu waxtaanal daa gën a yeesalaat sunu taalibe gën koo dolli ndax waxi sëriñ saaliwu ji nga tànn mu wax sëriñ becc ne ko képp ku jébbalooti ci yow nang ko ko nangul ndigal laa ngoog jooju wax daa bokk ci wax ya nga xam ni wanewul lu dul li sëriñ saaliwu doon wanewul lu dul itam li sëriñ saaliwu def sëriñ becc waaye it wanewul lu dul ak gi nu sëriñ defal kon ñetti bind dañ ko cee jàngewaat yoo xam ni ku ca nekk doy na sëkk ak cant bind bu njëkk bi mooy gën a xamaat lenn ci li Serigne Saliou doon ba tax mu sañ lu ni mel beneen bind bi mooy gën a xamaat lenn ci li Serigne Saliou def sëriñ Béthio ba tax mu doon ca gàttaay li jukk kenn xamul te kenn du ko xam Saliou beral nun ñi nga xam ne ñun lay dogal nuy jëbbalu ci moom ñett yi yëpp bu ca nekk dañ caa belliku waa belliku goog daa belliwaat sunu xam ak sunu talibé ndax wax nga ko jébbalu rek la kenn sañu ta bañ a def waxuma la nangu njëbbal ak yooyu waaye Serigne Touba mi xam shahidan te képp ku dee ci réer fannaaru awlaa bihi sawara moo gën a yey ci yow maanaam yow daanaka texee bi moo gën a yey ci yow ak texe daf cay teg wal xiyaasu billahi taala daal na yàlla nanu yàlla musul ca loola lu sëñ tubaay musul nag loola réy na kon ndekete dund ba faatu te jébbalewoo sa bopp ko mat loola sëñ tubaay nee na la muy yàlla nañ ci yàlla musal lu sëñ tubaay ne yàlla nañu ci yàlla musal nag loola yàlla nañu ci yàlla musal kon loolu lu muy firi mooy ñépp na jébbalu wax léegi nag li ci doy te doy waar mooy jébbalu moomee bi mu waree ñëpp kon génnul kenn kon kenn dong mooy mën a nangu njëbbal mooy yàlla mi moom ñëpp ndax ñëpp fi nekk ak yàlla allahu muy yàlla ñeneen ñi ci des ñëpp di jaam ñi kon alxalqu wal xaaliqu rek la ñëpp ñooy xalqu mooy min def yëpp xaaliqu nag mooy ki leen sàkk moo tax sax alxuraan ba mu jeex andi nga ci aay yu bari mësta di digli ak njëbbal waaye mësu koo digle ji jëme ko ci kenn ku dul ci boppam rek wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yaatikum al azaabu summa laa tunsaruun ti xamul lu mu doon duñ ay cëntaakoon mooy Serigne Touba na jàngal jàngal leen woo xam ni nun day wóor na lu ne loola Serigne Touba wax ca ñàngale ma nun day suru cant ci kaw la dani wa kullu seyxin képp kun tudde Serigne ndax lu tax ma ne képp kun tudde Serigne dafa waxul as sayq bu ñu wan as sayqu mu am alif ak laam bu boobaa Serigne bi lay firi. comme ni mu waxee ni asibtu fii mahabbati assayqi fii mahabbati sayqi dañ koy taxañ hmm. waaye baat bi mooy assayqi ñu boole tigi ak sàdd gi ne fii mahabbati sayqi bu boobaa sëriñ bi lay wax booba kenn rek lay joxañ waaye bu fekkee dafa wax sayxin rek sayxu nga xam ne amul alif amul laam bu boobaa kun tudd sëriñ bu koy firee ndax loola ab sëriñ rek la wax mën naa doon ko ne mën naa doon lu ne foofu la ko sëñ Tuubaa jàngale wa kullu seyxin da koo baril hmm. dana képp ku ñu wooyee sëriñ moo tax ku ñu wooyee sëriñ daa bokkut ak kii sëriñ bi sëñ Tuubaa nag jàngale foofu jàngale mu rëy wa kullu seyxin mi ngi ci man waxatul mubaaraka da waxe sëñ Tuubaa la waxe sëñ Tuubaa nag xam nga ni mu ko waxee wa kullu seyxin képp ku ñu wooyee sëriñ yaamuru wa yanha mu doon koo xam ne da ngeen koo gis muy digle ak di tere bi xayri ismin min allahi tabaraka wa taala wa min rasulihi waaye amu ca ndigalul yàlla amu ci ndigalul yonente bi man naa am aadaa ko ko def wala la neen waaye daal yàlla joxu ko ndigal ci nangu njëbbal ak digle yàlla joxu ko ndigal ci nangu njëbbal ak a tere moom daal ma ngay nangu njëbbal ma ngay digle ka tere amu ci ndigalul yàlla amu ci ndigal yonente bi wala yam xaa min jihati nafsihi daf koy def rek ci bànnee ko bakkanam waa waaxu Sëriñ Tuubaa nee na na ngeen xam ni tuddul sëriñ ñoo ko màkkee kon kooku nu muy tudd nag ndax ñun kër sëriñ lañ ci su ma feeñ ci moom Serigne Touba ñëw doon ko loolu rëy na lool ci nga daje kooku waaye ni ma déggee waxi Serigne Saliou ji mu wax si Mbethio mooy dafa feeñal lu gën a rëy loolu Serigne Saliou fu ne lim def lan jotat liñ ko desee sax teewlu xam nga Serigne Saliou bu ne woon man day Serigne bu matub Serigne laa ndax mooy yonent bi mooy Serigne Touba ñëw leen di jébbalu ci man man nangul leen ko loola day rëy ndax dañ naan vraiment lii rëy na ndax li feeñam ci yonent bi feeñ ci Serigne Touba. ñëw woote waat ko wane nga ni yaay yonent bi yaay Serigne Touba boo te bu boobaa day day sëkk nag ndam waaye Serigne Saliou daa def lu ëpp loolu lu gën a rëy loolu la feeñal ndax daf ni Serigne Béthio yow Serigne Béthio mu ne ko Macky mu ne ko képp ku bëgg cee jébbalu nan ko ko nangul ndigal laa ngoog maanaam sañ a joxe ndigal sañ a joxe ndigalul nangu njëbbal loolu loolu moo mës am jamono xam nga sañ a nangu njëbbal ndax am nga ci ndigalul yàlla jot naa feeñ feeñ na ci rasulullahi sëñ Tuubaa ñëw na feeñal ko mooy sañal nangu ndigal sañal nangu njëbbal ndax am nga ci ndigalul yàlla daf diglu leen bu baax li ma wax de dama ni li sëriñ Saliou def loolu guléet la mës sa am ci jamono ñaari njëkk yi sax am na seetlu leen bu baax li ma leen wax mooy nangu njëbbal am ci ndigal loolu dafa yombul képp ku amul ndigal mënoo nangu njëbbal ki am ndigal nag yàllaa feeñ ci moom mu mën a nangu njëbbal mooy yàllaay nangu njëbbal ci moom loolu nag kaw la ci rasulullahi sëriñ Mm-hmm. dégg ma si su ko gis suñ tawféex mooy noonu ñi mu def nag mu jëggul ci moom mu nangul na ko ñun dañuy dégg baatub nangul naa la nangul naa la ko nag ñëpp dañ ko du dégg moo kon noonu ñu am tawféex yi mu ne hmm. fu sëriñ moo defee te mu wóor ñu am nan mu wóor ñu ne li jébbalee baax baax ñu nangul la kooku dina jafe mu wóor ñu ne nangul nan mu wóor ñu am na koo xam ne ku ànd ak moom loo ñàkkati ci yàlla fi ñàkk ba siifa la ko xañ baa muy dogalub yàlla kon ndekete ku ci yor biir tuuj ñàkk duy ba jiigal tey moo foo tollu xamoo li xew ñun ku ci gën a yeewu gën a xam li xew doo nëppalu doo xaxtandiku doo say doo tala dallu dangay yëg ni lii tawfeex diiru sëriñ bu ubbi feeñal ci moom lu ni mbel mës a xew ci jenn jamono lu dul Sëriñ Saliou rek ku ko xewal moo ko man nag moo ko def moo tax jàngaat nañ ci lii amaat nañ ci mbég suñu doxal seddaat na yeesaat nañ ci fekk noonu ñaan ci barkeb Sëriñ Saliou waxtaan wi nga gën koy man nii la ko sëriñ bii liggéey looyee nga gën cee dajeeg ndimbalam ak tawféexam ñu àndal ñu ko jariñoo faaw barkeb Sëriñ Saliou amiin yàlla na fi ànd ak amiin waay amiin waay sëriñ Saliou amiin